pour Tëngéej ñëpp xam ne président Seydou Diouf am na ay jeunes mooy ni ma ko waxee démb rek ñun dañuy politique mais dañu lay la politique autrement parce que ñun suñu président ku ko xam xam ko ci yar xam ko ci teggin donc moom ci loolu la ñu yar moo tax xeexuñu xuloowuñu mais li ñuy wax rek bu su dee bu jotee ku dund doo gor ñu pare nag wan leen que ni président Seydou am na ay jeunes ay jeunes yu man jeune ndax yaakaar naa ne góor ñi ak jigéen ñi ku leen gis xam na ay ndaw lañ ñu nga xamante ni pare nañ pour rek lu ñu woo ñu wuy ji leen mais daal jàpp nañ ne ñi taaloon keroog juuti ba sol ay kagul ñoo ñëwaat taal fii sol ay kagul et di leen wax rek ne ñun bés bu ñuy ñëw duñu sol ay kagul ndax tëngeet yaakaar naa ne ku nekk xam nga kan mooy kan te ku nekk xam nga ki la mën da ko dul nangu président Seydou dafa nekk ndaw président Macky Sall woolu ko teg ko assemblée mu fay liggéey liggéey bu am solo te yaakaar naa ne ku mu nekkoon yow it bu ñu la joxee liggéey di ko liggéey dawu ci benn yoon suba la ko gën a mën a jox liggéey mu gën ko mën a def te heure bu ko defee rek ñu ngi taxaw ci wetam di ko accompagner acte la bu nga xamante ni kenn rafetlu ko ku bokk PPC ku bokkul PPC kuy doomu Tëngéej rek yaakaar naa ne soo gisee lii rek ñaawlu nga ko.